إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom jalla wa ala di seede ne yàlla rekk moo yeyoo ñu koy jaamu di seede ne yonentam muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy jaamu yàlla bi nga xam ne ca la ñu war a jëlee naka la ñuy jaamoo suñu boroom gannaaw loolu mbokk jullit sunu xutba tey bi mi ngi jëm ci yan yoon la lislaam tëral ngir ñu yare ca la nga xam ne mooy sunu njaboot ci jamono bi nga xam ni ñi ngi ci ubbi itam école nga xam ne parents yu bari dana nekk ci ñoom tiis bu gën a màgg sax tiis ba ñuy am ca tabaski korité ngir coono ya nga xam ne moom lay àndal na am mbokk nañu xam ne loolu lépp su dee yéene nga ca yéene bu sell ci jaamu yàlla yi gën a kawe la bokk ci sarax yi gën a màgg la bokk mooy la nga xam ni yaa ngi koy def sa njaboot ngir ñu am texeg àdduna ak texeg àllaaxira mbokk jullit njaboot googee nañu xam ne suñu boroom moo koy maye nee na moom moo ñu wërsëgal ay soxna ci sunu biir soxna yooyu mu wërsëgal ñu ci ay doom gannaaw ba wërsëgal ñu ay sët wërsëgal ñu it lu ñu leen yore suñu boroom mu ne ndax am na beneen xéewal bu doomu aadama di sant ba pare bëgg a weddi xéewali boroomam mbokk njaboote ngi noonu yàlla dong koy may la koy yorit ci yàlla dong lay jóge suñu borom mu ne maa gàddu seen wërsëg gàddu seen wërsëgu njaboot loolee la jullit war a gëm borom bi subhanahu wa taala njaboot googee mu def ko li ñuy tudde aw jiwu baykat ba la muy ji ca toolam ngir góob ko ëllëg njaboot googu it aw jiwu lañu ngir ëllëg ñoom ñooy nar a jël la nga xam ne moom la mag ñiy taxawe tey su dee jaarale nañ leen fa neex yàlla dañuy nekk mbégtaayu xol ñeel la nga xam ne nii ñooy seeni waajur njaboot googu nga xam ne ëllëg ñoo war a yor responsabilité ñoom it ngir yar génération yi nekk seen gannaaw ngir teete leen ca la nga xam ne mooy diine yàlla ci suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne xam leen ne alal ji ak doom yi day taar la bu yàlla indi ngir taarale ko àdduna doonte ne nag la nga xam ne mooy tuyaaba jay sax day moo gën ca sa boroom moo gën ci lu ñuy mébét ca mbokk mbokk doom mi ngi noonu doom neex na lool doom dimbal la lool waaye nag lan moo war a nekk jubluwaay yow bàyyi ci nga bëgg doom lan moo war a nekk jubluwaay yow yaay ci nga bëgg doom mooy ngiree doom yooyee nga faggu ci ngërëmal yàlla faggu ca la nga xam ne mooy ay tuyaaba doomu aadama bi bu dundee ba dundam jeex bàyyiwul gannaawam lu gën doom jo baax joo xam ne mi ngi jaamu gannaaw mi ngi jaamu yàlla gannaawam di ko ñaanal loolu moo tax ba suñu borom natt woon na lenn ci ay yonentam ñu dem ba màgget ñoo seeni soxna amuñu doom waaye loolu teewul ñu doon ñaan ngir yàlla may leen doom ka ca jiitu mooy ki gën ci doomu aadama yi gannaaw suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka nga xam ne suñu borom jàppoon na ko def ko muy xaritam muy ibrahima alayhi salaam yàlla seetaan na ko ba mu jege téeméeri at amul doom gannaaw ba la toroxlu ci kanamu yàlla daldi ne ay yàlla may ma ci doom yu baax yi loolu it mu lay wan ne mbokk du doom rekk mooy xéewal waaye doom ju baax mooy xéewal aka bari ay doomu aadama seen doom ñoo yàq seen àdduna ca seen doom ñoo nar a yàq seen àllaaxira yal na yàlla musul ñu ci borom bi nee na ba mu ñaanee lii day laa ko bégalee ci xale boo xam ne bu xaliim la ko boole xam-xam ak boole ak dal ak lewet doom ju mel noonu laa ko may gannaaw ibrahima zakariya ñëw ca mooy liñ doon tafsir àllarba ji paase moom it dem na ba màgget xool mbooloo mi ko wër mu ne ay yàlla gisuma ci ñii kenn koo xam ne sama gannaaw dana mën a taxawe li may taxawe kon yàlla nag ma may doom joo xam ne da nga koy def doom joo xam ne gu ñu gërëm la wajalhu rabbi radiya doom joo xam ne ju ñu gërëm la ca mooy dana am sa ngërëm am sa ngërëmu jaam yu baax yi mbokk loolu la it la ñuy fekk gannaaw yenent yu tedd yooyu suñu borom wane melokaanu jaamam yi mu gërëm muy ibaadu rahman wax seeni melokaan mu boole ca loole mooy ñoom de fu ñu toll dañ naan ey yàlla yàlla nag ñu may ci suñu way dencante yi bu dee jigéena ma ngay ñaan ca borom këram bu dee borom kër ma ngay ñaan ca soxnaam yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñuy dencanteel yàlla nag ñu may ci ñoom may ñu yit ci suñu njaboot suñu xol sedd ci ñoom ca nga def ñu ñu nekk royukaay ñeel képp koo xam ne bëgg naa baax ay képp ku ragal yàlla lii mbokku gannaaw ba lislaam tegee fii doom looloo taxit lislaam ittewoo ko ci ñu yar ko yar goo xamee ne nii société bi yépp day wëlbatiku jëriñoo ci doom jooje doom ji it wëlbatiku jëriñoo ci société boobee loolu moo tax ba islaam heure bu jógee di yar njabootam firiwul rek ci ne nañ ko yóbbu daara mu mokkal alquran ñu jàngal ko ay fiq kaza wa kaza déedéet islaam bu yar njabootam day xool lépp loo xam ne njaboot googee aajowoon nañ ko la jëm ci seen wàllu jëmm ya la jëm seen wàllu xel ya la jëm seen wàllu jukko ya la jëm seen wàllu bakkan ya day tabax nit koo xamee ne nii mboolem ay aq ya nga xamee ne nii am na ko dana ko xam waaye it day xam mboolem wareef ya nga xam ne yoral na ko société bi it ku mel noonu dana ko xam loolu moo tax ba mbokk julit heure boo xamee ni ñi ngi jóg di bëgg a yar suñu njaboot dañoo war a jëkk a xam ne njaboot googee suñu jubluwaay bi gën a màgg ci ñoom mooy ñu def leen ay doomi jullit cuub leen cuubug lislaam ba fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ku leen gis xam ne kii kat mi ngi génne ci l'école bu lislaam l'école boobu nga xam ne suñu borom nee na moom mooy cuub ña ka neex ca kan moo gën a rafet yàlla la nga xam ne nii mooy ak cuub loolu mooy wane ne doom bu juddoo ci société nañu xam ne du doomu ay way juram waaye doomu société bi yépp la loolu sax wala fi dañ koy wax dañ naan doom de bu bonee doomu yaayam la waaye bu baaxee doomu ñépp la islaam nag dafa waajaloon njabootam doon njaboot goo xam ne njabootu ñépp la ñuy doon loolu it moo tax ba doom joojee heure buñ ko gisee kenn du ko jël di ko féetale ay waajuram kese bal société bi yépp ñoo war a taxaw ci njaboot gi ñépp baax jiitu sunu société bi di roy tubaab bi ci bopp sa bopp laajal mag ñi nga xam mooy dëkk bu mu mënoon a doon bépp doom bu fa juddoo ku ñe day jàpp doomam la la nga daan nëbb sa bàyyi moom ngay nëbb bàyyi jàmbur ndax da ngay xam ne bu ko gisee ci yow dalay daal di jubbanti waaye mbokk gannaaw loolu it la nga xam ne mooy état bi warugar la mu ànd ak way jur yi ñu daal di taxaw ci yar xale yi way jur yi féetewoo yar leen ca kër ga état bi féetewoo yar leen ca lekkool ya loolee doonte ne ne nga la way yow way jur xamal ne léegi nga xam ne mooy lekkool dafa war a ñëw mottali la waaye charge ba gën a rëy taxawaay ba gën a màgg yow waa jur yow lañ ko teg ci nga yar sa njaboot rawatina yow mi nga xam ne yow yaay yaay ndax doomu aadama amul kenn ku gën a mën a am jeexital ci moom lu mel ne ay waajuram waaye rawatina it kenn munta jeexital ci moom lu mel ne la nga xam ne mooy yaayam mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala def nañu ee yéen jullit ñi fexe leen ba bu leen dem safara fexe leen ba bu seen njaboot dem safara safara tàng na métti na ña fay mbugalaate amuñu yërmande la leen yàlla sant dong la ñuy def te mooy malaaka ya loolu nag mbokk ku ne war caa taxaw ñàkk caa taxaw danay jural musiba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ci ay sahabaam di ma aqal ibnu yasaar nettali na nee na yonent bi day alayhi salaam nee na amul benn doomu aadama bu yàlla di dénk ak ndénkaane ca ndénkaane yi gën a màgg yu yàllay dénk ab jaam mooy mu dénk ko njaboot waaye gannaaw ba kookee saggane ndénkaane yàlla googee lu dul loolee xetu àjjana sax du ko xeeñ looloo tax yow mi nga xam ne aji yarkat nga na doon yow ma nekk ca kër ga muy way jur ya wala yow mi nekk ca lekkool ba muy ñay jàngale yéen ñépp seen wareef war na doon ngeen xam xale bii nga xam ne nii dafa nekk suñu kanam lan mooy la gën a màgg lu ñuy séentu ci moom ci avenir am ndax xale bii dafa judd pour nekk un médecin ndax daa judd pour nekk architecte wala maçon wala menuisier déedéet mbokk jullit xale boobee lay priorité ca moom la taxoon yàlla indi ko ci kaw suuf mooy waxam jam waxoon ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun bind ma nit ñi ak jinne yi lu dul ngir ñu jaamu ma looloo tax yow way jur bi yow maître ba yow professeur ba sa jubluwaay bi gën a màgg ci xale boobee mooy fexe mu nekk jaamu yàlla bu déggal yàlla lii bu dee ne réussir nga ci réussir nga ci sa charge à quatre-vingt-dix pour cent amma bu dee échec nga ci xamal ne échec nga ci lépp la nga xam ne mooy jaamu yàlla nag niñ ko waxe sànq ca njàng ma firiwul ne ñu fexe ba muy jullee ko woor kese waaye mbokk jaamu yàlla mooy ñu fexe ba jàngal xale bi ëllëg ki si biir bu nekkee ca marché ba nan la fa war a comporté woo bu nekkee hôpital nan la war a comporté woo bu dee ma nga ca chantier nan la war a comporté woo jàngal ko la nga xam ne nii moom mooy àq diineem lépp mbokk noonu la lislaam santaane xale bi ñu def ko xale boo xam ne xale bu dëgër lay doon looloo tax lislaam gërëm la nga xam ne mooy sport allahuma sport boo xamee ne nii du doon luy yàq ay jukkoom du doon luy dox digganteem ak jaamu yàlla loolee lu mu mën a doon ci sport islaam da koo gërëm ñaaxaate ca rasul sallallahu alayhi wa sallam fekk na lenn ci waa ndawi ansaar ñi ngi nekk di entraîné wu ci lancer ay la nga xam ne mooy ay flèche mun na leen aca góorgóorlu leen seen maam islam ismail ku mënoon na fitt la woon loolee it la ñu daan gis ku mel ne omar ibnul xataab daana ñaax sahaaba ya seen doom yi jàngal leen leen bañ mën a féey jàngal leen leen bañ mën a war fas jàngal leen leen sax nu ñuy tëbee dal ci kaw fas te xam ngeen ni ñi man war fas da ngay gis koo xam ne fas yuy daw mën nañ koo dab sax tëb dal ci kawam li lépp mbokk lislaam mi ngi ciy xalaat ngiree xale bi am la nga xam ne mooy jëmm ju dëgër waaye it noonu lay aare wàllu jikkoom lépp loo xamee ni dafa nar a yàq jikko xale bi islaam da koy teel a arrêté lépp loo xam ne nii dafay tax ak dundam itamit na sax islaam da koy teel a arrêté looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaaxaate gannaaw ba suñu borom digle ca mooy ñu jël njaboot gi nag jàngal leen mbokk ki jàng munta yem ak ki jàngul abadan suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na dana yëkkati ñi nga xam ne nii dañoo gëm ci ñun waaye ñi nga xam ne dañ ca am xam-xam dana leen teg ca kaw ñi nga xam ne dañoo gëm rek ci amuñu xam-xam yarfa illahu lazina amanu minkum wa lazina utul ilma daraja looloo tax boo bëggee sa doom kawe boo bëggee ka nga yar kawe fokk nga jàngal ko xam-xam xam-xam boobee nag dafay am lu ciy priorité loo xam ne moom munta ñàkk gannaaw ba am lu koy complété lay priorité munta ñàkk mooy mu xam diineem su dee fexe nañ ba mu xam diineem gannaaw ba nag ñu xool ndax dañ koy def maçon menuisier médecin ingénieur loolu moom beneen mbir la waaye sàkku xam-xamu diine wareef la ci bépp julit na doon góor la wala na doon la nga xame ñi ni moom mooy jigéen mbokk xam diine xam sa boroom xam sa warugar day tax xale boobee doon koo xam ne nii ku réussir la à l'avance àdduna lépp loo xam ne dem na di ko ci uti bu ko amee loolu du ko beewloo loolu du ko sànq day daal di delluwaat ci yàlla xam ne lii xéewal la gu jóge ci yàlla mu gën a suufeel boppam gën a xalaat ni muy jëriñe mbokk ay jullitam mu safaanoog intellectuel bi nga xam ne xamuluñ ko boromam su demee ba nekk architecte dem ba nekk professeur dem ba nekk leneen day jàpp ne dootu moroomu nit ñi beru dootul nangoo dëkk ak nit ñi dootul nangoog jaxasoog baadoola yi loolee lan moo koy waral day jàpp ne réussite ba moo ko may boppam comme la xawru na waxoon innama uutituhu ala ilmin indi loolu maa ko sama xam-xam la moo ma ko may waaye lépp lu muy wut ci àdduna échec ca loolee du ko déranger loolu du ko tilbitil du tax mu naan day drogué wu wala day leneen ndax day xam ni li yàlla moo ko dogal def naa sama war a gor ci njàng mi examen ñëw ne échec na jàng naa ba am samay diplôme maa ngi fëgg amaguma liggéey toll naa ci wàllu sëy mënaguma dugg ci sëy yii yépp da ngay gis bépp fitna bu ko dal ci àdduna day xam ne lii kat mooy sunna yàlla ci kaw suuf mooy ñu ko gën fuuf am nañ ñu ko ëppale fuuf ca amuñu li muy sàkku kon day muñ muñ ko rafet delluwaat ci boroomam lii mbokk mooy xam-xamu diine la muy jëriñ sa doom moo gën bépp formation boo ko mën a dugal ci kaw suuf fexe ba mu xam diineem xam boroomam xam ay dogalam loolee xamal ne mooy la gën ci lépp lu mën a doon gannaaw ba nag xale bu nekk ñu teete ko bu dee góor ñu xool ban liggéey la lañ ko mën a jàngal ba ëllëg mu jëriñ boppam jëriñ société bi bu dee jigéen a ban xam-xam lañ ko mën a jàngal ba ëllëg mu jëriñ boppam jëriñ société bi ca bépp liggéey boo xamee ni nii dana tax ba du mën a sàggane njabootam taxawee ak borom këram loolee islam bañul jigéen liggéey ko mbokk lii mooy la nga xam ne moom la lislaam gis islaam gis na ki gën ci doomu aadama yi mooy ki ëpp njëriñ ci doomu aadama yi looloo tax benn waay dana xëy ca jàkka ja keneen xëy ca moom ca hôpital ba keneen xëy ca école ba bu ñu dajee ka nga xam ne moo xëyoon ca école ba wala hôpital ba wala marché ba ëpp ay tuyaaba lu waral loolu mooy mi ngi dépendre ci la nga xam ne doon na ko taxawee ci biir société bi sellal ko ca yàlla tax daa di doon koo xam ne dafa jëriñ nit ñi xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki dundal benn nit moo ki dundal société adduna yépp ñoo yem médecin bee kon jàng ba am ay diplôme médecine am ñu indil ko malade boo xam ne buñ ko opéré wul d'urgence day dee mu futteeku dugg ca bloc opéré ko sauvé ko ndax kii dañ ko yemele ka yend woon ca jàkka ji moom di wàcce ay kaamil déedéet mënuñoo yem looloo tax kon njaboot gi dañoo war a fexe utal leen yoon bu ñu mën a jaar ba jëriñ société bi waaye nag base ba na nekk base diine ñu xam ne ay jaami yàlla lañu lu ñu xam yàlla moo leen ko xamal lu ñu am yàlla moo leen ko wërsëgal lu ñu ñàkk nattalu bu bawoo ci yàlla mbokk lii da ngay gis ne heure boo xamee ne nii bàyyi taxaw na ci yaay taxaw na ci lu mel noonu danañ jëriñ seen bopp jëriñ seen njaboot jëriñ société bi yëpp ñu fexe suñu njaboot fexe jàngal leen aaya yi nga xam ne suñu borom yàlla jàngale na ko ci nu ñuy war a njaboot boo demee ci alxuraan bari na ca lool ma ngi ñuy jàngal luqmaan ma nga nele ma nga toog ak njabootam di waxtaan ak doomam ci lu li ñu gën a manqué tey ci sunu société tey mooy bàyyi toog di yedd doomam wala yaay toog di yedd doomam ca loolu day moo ne dañuy gis ne njàngale la moo xam ne suñu borom yàlla bam ñu koy nettali luqmaan kenn xamul ci yenn jamono la doon dund waaye muy wane ñe bàyyi nii nga war a mel luqmaan dañoo gis ne bokk na lu suñu borom nettali ca moom mooy yow doom war ngaa fonk say waajur ki fonkul ay waajur keneen ku mu fonk da koy nax doomu aadama mbaaxam day jëkk ci waajuram xamal ne ko it ne war ngaa fexe di ànd ak ñu baax di toog ak ñu baax di xaritoog ñu baax wattabi sabila man anaaba ilay heure booy ànd sama doom ànd la ko baax sama doom foo tollu deel digle lu baax di tere lu bon cay ah di def loo xam ne lu baax la xamal ne foo mën a nekk ci kaw suuf suñu borom yàlla mi ngi lay surveiller ca loo mës a def ci lu baax wala lu bon pay ga mi ngi lay xaar yowmal qiyaama sama doom àndal ak nit ñi bu leen xeeb mukk booy dox ci kaw suuf na nga dal del wàcce wàcce la nga xam ne mooy sabaat lii mbokk da ngay gis ne ay teggin la yoo xam ne alxuraan moo ñu ko jàngal la aju ci wàllu jukko ju rafet suñu borom ne seen doom yi de bu ngeen nekkee ak ñoom ci kër yi nga xam ne am na heure yoo xam ne ku ne am na droit wéet sa néeg daal di summi sa yére mu ne avant ñuy julli fajar xale bi lu mu tuuti tuuti balaa dugg na fëgg buñ julee tisbaar ba pare balaa dugg na fëgg gannaaw gee balaa dugg na fëgg lu waral loolu ngiree ñu defar jukko xale bi am na ay mbir yoo xam ne xale bi waru koo teel a gis loolu nag yéen ñépp yéenay bàyyi xel nag naka la ñuy def jamono bi nga xamee ni tey yàlla nattoo nañu ay télévision ak portable mbokk njaboot gi mi ngi nii ñu war a jublu ci yar leen am ngërëmal borom bi jalla wa ala ñu jël leen bëgg leen wan leen ne ñun dañ leen a bëgg fexe it sunu njaboot bëgg ñu bañ ñoo ragal ñu suuxat ci ñoom la nga xam ne wan leen ne ñun dañ leen a yërëm ngir ëllëg ci sibir ñoom it ñu daal ñu doon ñu yërëm daal di ñuy yërëm la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gënoon a ñaaxe mooy depuis xale bi am juróom-ñaari at nañ koy teetee ci muy julli même bu demoon ba am fukki at sax nanguwu ko sax nang ko ca dóor dóor yoo xame ni nii du jubluwaay dóor yi bañ waaye jubluwaay ñaax ko ca xale boobu ñu war koo tàggat ci mu doon xale buy wóolu boroomam xam ne yàlla dong moo ko mën a jëriñ yàlla dong ko mën a lor tey jii boo leen bàyyee seen njaboot gi wallahi ak la ñuy seetaan ci rajo yi ak télévision yi njaboot googee daañ leen rëcc daañ leen sànq li ñu yàlla nattoo ci réewum Sénégal mooy ñañ daan tuddee kilifa diini nee na ñooy seeni baay ak seeni maam dañ daan woo nit ñi jëme ci yàlla ca it loolu la ñuy jort ci ñoom yal na yàlla fay leen waaye tey ñoom ñuy woo nit ñi jëme leen ci seeni maam gëmloo leen ne amul kenn kuy jëriñ lu dul sa maam amul kenn kuy mën a lor ba lu dul sa maam ba sax la gën a rëy ci loo xamee ne nii day am tey ci réew mi mooy place bi gën a kawe moo tim médecin yi procureur yi tim ñépp muy président de la république bi nga xamee ne suñu borom nee na qulillahuma malikal mulk ay yow buur mi nga xam ne yaay yilif ñépp yaay dogal lu la neex ci réew mi xamal ne nag nguur googu man yàlla maa ko moom maa koy jox ku ma neex maa koy nangu ci ku ma neex muy aaya yoo xam ne yonent bi ak sahabaam ñi ngi koy jàng mi ngi ci téereb yàlla bi ñu koy jàng ba tey nit mën a taxaw ci mbooloo télévision internationale wër ko mun a déedéet ku mas a am nguur sama maam moo ko ko jox kuy war a am nguur ba ilaa yu mu jin sama maam moo ko ko jox inna lillahi wa inna ilayhi rajiun na ngeen tàggat seen njaboot la yonent bi doon tàggat njabootam yonent bi jàkkaarloon na kenn ca xale muy ibnu abbas ne ko kaay ma jàngal la ay kaddu ibnu abbas wattul yàlla yàlla wattu la wattul yàlla foo nekk rek yàlla dana taxaw dimbali la booy ñaan bul ñaan kudul yàlla booy sukkandiku bul sukkandiku kudul yàlla xamal ne bu mbooloom yépp daje woon jibril ak muhammad ak ibrahima ak sahaba ak ñépp daje woon bëgg laa jëriñ ci benn njëriñ mënuñu laa jëriñ lu dul yàlla dogal ci yow waaye adduna yépp buñ daje woon iblis ak ay armeem nit ak jinne yépp ñu bëgg laa lor duñ la mën a lor lu dul lor goo xam ne yàlla tuddoon na ko ci yow li yàlla nar a dogal ci yow bind na ko xalima ga yëkkati nañ ko daaje wow na lii mbokk yar leen ci seen njaboot boole leen ak seen njaboot ak ka leen moom ka leen moom mooy borom bi jalla waala yàlla leen bind yàlla leen di taxawe e bu ko neexee yàlla moo leen di jël ñu xam ne kenn amul leen lor wala njëriñ kudul yàlla yow waajur mënoo lu dul sabablu lii mbokk da ngay gisee ni nii mooy la nga xamee ni nii képp koo xam ne sa yéene rafet na ca nga dogu ci loolu walaay réussir nga bu doom ja baaxee réussir nga bu doom ja baaxul réussir nga ndax mbaax ak mbon nekkul ci sa loxo ci loxo yàlla la nekk yàlla won nañu jaamam bu màgg di nuux alayhi salaam woote junni at yàlla may ko doom ju bon kon mbir mi du ne na baax ak nu bon mbir bi mooy ëllëg boo taxawee ci kanamu borom bi fekk yow say lay wir na ca mooy njaboot gi kat la waroon ci ñoom def nga ci sa kemtaleel kattan yal na yàlla baaxal ñu baaxal suñu njaboot yal na yàlla teetaleen ila siratul mustaqim lépp loo xam ne da leen di lor ci seen diine ak seen adduna yal na yàlla subhanahu wa taala fegal ñu ko yal na yàlla delloo réew mi ila siratul mustaqim yal na ko def réew mu jébbalul yàlla def ko réew mu wéetal yàlla ba yàlla may ñu xéewalu adduna ak xéewalu alaxira yal na yàlla defal ñu aafiye fi dunya wal axira allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin